mu fal la ngay falee kii mooy saadul kumala awal fadaayu maalam aadun ku dem fa moom xam ni kii mooy saadul fadala moom raw na mboolem ñi fi yaaru ci wàllu gune soo daanu bii daanu fooy naa yi laaj si na la maamam sëriif la sëriifun bun sëriifun sëriifun bun sëriifun sëriifun tuuma jubluwu la du xoti saatir du tas yaakaar du daw ko ko ku laaj may la nga giijal fa lu xaniyu allah muhammad muxtaar maalaka wa yow seexuna fadlu yaa moom yëbi may mi ci laa law laa ka seex fadlu xéewal yi walwali kon duñu walwaleeti na ngeen way seexuna fadala fadlun asimu serifun faarin fatinun mbàkkeen bu soobe la mbàkkeen bu soobe la mbàkkeen bu soobe la ki mooy njiite mooy wasi la loolu dem na xéewal yi baawaan dootu jeex aban ko sopp seex fadlu xéewal wër la lor dëddu la day ilaa man adaa seppalu fi aban xay ilaa man adaa tarne bi xam nañu la loo wax borom nguur ga gaaw koo def ne yaay ko juboo waadu diiwaane seen mbooloo ma xam nañu la bay ci wilaayati yaa yor sonn mag ba bu wér sëriñ nga yaa jiite mboolem ku ñu wëllu la gaal gaa nii teer ku nekk ba tàdd yaa xale ku dugg gaalu sëriñ bi fallu àggale la fallu la yàlla faale nan ko faale see fallu bu leen ko faa adadin ala safiil wala akaadima ki mu jox leen ma noppi jox leen ma noppi jox leen ma noppi daay wax man lu baax sa rafet jàmbaar ji buy jëfitam waykat yi sañ jotal Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat ibnul xadimu samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la dimbal yal na nga yeggale baaxi fi woon yal na nga yeggale naa lu baaxi fi woon lii lii ci sëñ Tuuba nga xëy ko matal mooy ñaan yu baax ñi la yar ñoom ñëpp xëy la gërëm ak Seex Mat bii la faggul yàlla xëy ko dogal der baa ngi yoon waa ngi yéen teel na woyof yaa aw ci jéego woon say wax la yàlla saxal woyof te ko waaye daal kuy wax na wax la mu xam biir baa di leen ti jéem a jubal jox naa saa ruu ak saa xol bi ak lu ma jur saa yéene ak lu ma jëf loo wax ma def ko waxal bindee bi maase na booloo bindee bi maase na booloo xam ni yaay ci fi woon nuy sa traboraate ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal te yaa ko waral yal na la yàlla musal ci ndog nga jëf ba matal si gën nga say mag te boo say doom ñu topp ci yow Cheikh Bamba jiite la yaa see rek nang lu dimbal alhamdulilah am dan cant war na ma ndax cant bindee fi ci yow Cheikh Abdou ko jotal yaa yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yor la fi woon mbooleem li Cheikh Bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay mbooleem li Cheikh Bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay xuddu yaa kawsu yaa najul xadimul asant wala bahru leen waar noo ngi sakku ndimbal buur yàlla noonu nanu maa nan sax balaa ya jamat ku dem jolof xam ni njëbbal mooy li wér doxalal yal na tuuba yal la yàlla saxal tuuba tuuba ba daj ami xob nguub sa rek boot say doom te nu ndigal yal a la a saxal tuuba ba doj amee xob nguub sara kii boot say doom te jox nu ndigal Seex Mbàkke ràññi naa la yaay mos doole jël teeti naa ne yaa raw département mi yàlla aar la man ngi le mois ma Seex Mbàkke ma di sa géwal ma way la man gont naa la jànq naa la xëy la hmm. doo bis doo xam fakk yaa di góor si ma góor si yot naa la maay salar si yaa tëdd yaa teg noonu tranga yaa ñàkk tumu yo amula yanga yaa gaay soxla waa ka juróom njaamur ku ne nga Seex Mbàkke fay na saay bor waa loo siin waa Jolof ak waa njaamur di botte doo futti kooku sutti koo ka botti doo botte doo gëddee yaa niy wodd yal na sa bi ñëpp xëy ni kodd hmm. walaay baar baas walaay baax bu doon tere amay bañ doo gis ku bay si am mbàkke mbaa ku koy foñ du weti ku soppeem ne ci biir noonu ba defa njombee xaju fu sew mësula jëw du wax miim te foo ko jëw nu caw la kon ni leen xiim xul booraa ngi moo dogal diyaatee la bekk wis naa la bu nu fàtte ni naa naraw ci yomee te pii bii ni naa nërëm ci yomee dani sey bii jam nga si am ak yaa di dan min daal jann moo leen ka ju bopp yaa ngi xaajaan ki jow ñoo ko juli di caaxaan kër yi tabax ngay séddee ndakaaro ay junni ngay séddee ndar ba daaru bii si basañ ak toni ceeb ak saañoo ngay may yow waa ji la gëdd gaañu mbàkke ba jurbel koo fi ji muy tuuse sa bong la yor yow ku la bañ moo xuuse ci li nga def ci réew mi yaay Sénégal ci li nga def ci réew mi yaay Sénégal ci li nga def ci réew mi yaay Sénégal ku bay sëriñ Cheikh Mbàkke yàlla du la baal ku rajkañ fa ne mooy tabiibu loo ko toom fa ne mooy abibu mooy rahmatal lil alamina turan loo ñàkk nekk maa ngi aw ma dara daaru xudóos def na fay xayma yu waloon leen moo appareil yaa nga fàkki naas di korne appareil yaa nga fàkki naas di korne suuf sa sabab bi borne moo indi raay bi moo fi def jumaa moo indi Seex Bamba ci biir mooy waaja moo indi raay bi moo fi def jumaa ji Bamba ci biir mooy waaja yaa dib donoom ah. yaa Mbàkke balaay ci biir suuf ca daagu mbaa nga jëy ca yaa jënd kami sa baay fa Jurbel jënd ga yaa bel yaa jënd mi sa baay Ndakaaro yaa jënd ka andi sa kër toll moom ñu waaru yaa jënd kër ga nekk ngaay ak ñaaxeen raw nga jaar yi yow ma nee sulaaseen yaa jënd karam sa mbaay fu lugaloo mm. dolli ci kër toll moom manqué wuloo guy mbëtt kër ga yaa ko boole der ba Seex Mbàkke Balla yaay borom tii ter ba am na fa ndar ay këri kër ba rooso rusu gisee dong yi dooyo xoosu dem naa ba kaw wax yéen naa fa sanni sa ka la ñu màggale yow ma lahadi am na fa ay taxaw taal cey moom moo di sagu diine ji mooy sunum koom ahmadul muxtaaru kër yaa ka tedd ka salamba sëriñ basiiru dem na fa ak taaram ba kër yaa ka tedd ka salamba sëriñ basiiru dem na fa ak taaram ba nii mi natulaahi la tudde kër gaa mun yu wër ko doomi bamba mër nga déglu ma a la a xew kër ci xeeti xéewal jaaraama bamba mbër ma jaam jeewal aalim nga xaafis nga defar nga jàkka am nga jumaa fa mbàkke añ na makka taari nay tee te dem na Tayba siyaare ngi yonent siyaare Bamba sang buur yaatar naa wuy nun saga jigéen ñi yow ku la daanu boo nga fi daabu baytil maqdis yaa jant tim nga mu leen gon yaafes mboolem yoneen yi dem nga seeni rawlatu mboolem yoneen yi dem nga seeni rawlatu mboolem yoneen yi dem nga seeni rawlatu siyaare leen ñaano fa jaam yi rahmatu dem moo xam na mi gaynde Fatma nga xam ne njool mi timin duñu ndaama ñool xam ne njool mi timin ndaama cey li mu am cey li mu def ci Sénégal li mu am cey li mu def ci Sénégal ku nekk may na la gën la ca Sénégal mu am cey li mu ci senegal ku nekk may na la gën la ca Sénégal may na ma man ay junni may na ma woloor wu jar junni junni moo baabul xuloor yàlla nga barkeelin waa mu ceebo amin yaa xel yaa mu jiibu yàlla nga barkeelin pepp mu suuna amin yaa ilaahil aalamiina alayhi salaatu wasalaamu nga may nu jannatul salaam